à l'école du Ramadan à di du Ramadan di ay yóbbal ak i jindiku yu leen MMS Pro 221 di baaxee bés bu nekk ci weeru koor wi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 mbokk jullit ñi ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di am mbégte ak kontaante di dellu sewaat ak yéen ci seen jotaay à l'école du Ramadan jotaayu tey bi nag dañ koy jëmale ci benn tomb bu am solo gannaaw bu ñu nekkee woon ci yi nga xam ne moom mooy tax nit ki am réussite eh, yaakaar naa juróomi jotaay yi ñu ci def mën naa doy ngir nit ki su ci jaaree a am li nga xam ne moom mooy réussite ci biir koor gi tey nag suñu jotaay dañ koy jëmale ci benn tomb boo xam ne tomb bu am solo la tomb boo xam ne mën nga ne jullit néew doole bi ñu néew doole ci kaw suuf moo leen ko yóbbee tomb boo xam ne dafa nekk càkkuteefu diine ndax yàlla subhaanahu wa taala daf koo bëgg ci ñun tomb boobu ci biir weeru koor gi weeru koor gi dafa ñëw pour jàngal ne ñu mën naa nekk te dafa war a am te dangeen ko aajowoo tomb boobu mooy la ñuy tuddee union union mooy al ittihad mooy booloo euh, yàlla subhanahu wa taala daf ñoo bind ñu nekk benn xeet euh, mu walbatiku sant ñu ñu jaamu ko moom yàlla ndax mooy suñu boroom wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum fattaquun wala wa ana rabbukum faabuduun ci beneen aaya yàlla nee na seen xeet bi benn communauté la benn xeet ngeen man maay seen boroom na ngeen ma jaamu wala na ngeen ma ragal kon ci biir loolu daf ñoo war a jàngal ne jullit ñi dañoo war a nekk benn dañoo war a booloo parce que suñu booloowee ci la ñuy am force ba défi yi nga xam ne moom moo nekk ci seen kanam ñu mën koo ñu mën koo élever ah ñu mën koo relever bokk euh, mais malheureusement li ngay gis léeg-léeg ci jullit ñi mooy tàqalikoo bi nga xam ne moom moo am seen biir waaye weeru koor su ñëwee daf ñuy wan ne ñun ñaa benn lañ parce que weeru koor gi daf ñuy jàngal ne ñëpp a ngi koy defandoo te yàlla li mu def sax ci miracle ci année bi mooy Sénégal fii ñëpp ñu àndandoo woor donc yàlla nañu àndandoo woreendoo noonu loolu dafa nekk lu am solo loo xam ne daf ñu koy jàngal mooy ñun dañu bëgg euh, ci suñu diine ji pour ñu mën ko am il faut ñu nekk benn il faut ñu nekk benn waxtu julli su jotee ñoo koy defandoo léeg-léeg ci jàkka yi waxtu koor su jotee ñëppay woor monde islamique bi yëppay woor parce que yàlla subhanahu wa taala dafa bëgg jàngal ne jullit ñi yéen ñëpp benn ngeen comme que ñëpp benn ngeen nag yéen ñëpp a ci kanamu yàlla santaane yàlla yi moom amul privilège amul sëriñ amul taalibe amul gor amul jaam amul buur amul baadoo la ñëpp ci bokk yam yow ni ngay wooree noonu nga yëgee ne sa mbokku jullit bi nga xam ne moom moo nekk ca Afghanistan ak ran social am nu mu mën a toll dafay woor aj Màkka su ki nga xamantene lek lek sax mën na nek ab président wala mu nek ab bour wala mu nek ab ab serigne wala mu nek lenen ak lenen ak lenen bo len fa dajé rit yi ngay def ci aji mom mom lay def parce que yéen benn ngeen ci yalla subhanahu wa taala nit ñi fenn lañuy gëna gën ci yalla moy ci ragal yalla inna akramakum indallahi atqakum kon wéru koor gi ñew bi mu ñew daf ñoo jangal ci ne ñun ñëpp benn lañ té dañoo wara fexé fexe ba góor góorlu bolo bobu nga xamné jullit ñi dañ ko wara bolo ñu daal di ci jox dox ay jéego daal ci daal di ci góorgóorlu ngir loolu mën a nekk loo xam ne dafay am wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu yàlla nee na na ngeen jàpp ngeen téye ngeen ngoy ci buumu yàlla bi te bu leen tàqalikoo donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax weeru koor gi dafa ñëw dañu ko jàngal su ko defee ñun ñëpp ñu mën a nekk benn di yëkkatindoo waaye aussi di doorandoo su ko defee xeet bi mëna a delluwaat amaat force bi nga xamantene ni amon nako ci aduna bi donc loolu yàlla na ko yàlla yombal defal ñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh